صائر وانا العلم الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم من انترنت وراديو طالب كويكم رات لي يني دي توك تي بوك بامبا فمو وني يين نك تاي سن بوك طالب دا فا نيو دا فا نيو تي ان ايميسيون سبيسيالمون nga xamante ni fii ci xadra Nuurullahi 322 fii ci yëmbal nga xamante ni njëgg mooy Cheikh Ass Malick Dia dañ ñëw nag amal fi benn reportage xool dundu daara gi xool la ñuy dund bu ko defee ngeen gën ci am leen leer xoolaale mbir yi kon business nag yéen a koy gisal seen bopp ay ci ñu dem. gannaaw bi noonu ngeen ko gisee ñëw ñun ñu yegg seen biir daara bi dégg yéen a dégg noonu si daal kon bu daay dem ngeen dund leer moom di si ngeen dund moom si daal kon gis nga ay ci ñu dem la ilaha illallah Jai leen tootaloon sëriñ bi xam ñu ngi leen di fay di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bi nga xamante ne yàlla defal nañu ñu séq ko muy jataayu cant ak jataayu ngërëm. di wax ne alhamdullilah rabbil alamin dal len ak jam ñëw ngeen seen kër ñëw ngeen ci lu ngeen mom ñëw ngeen ci lu ngeen bok ndax hadara bi moy hadara nurullah moo di xadara bi nga xamne leeru yàlla lañu ko tuddé leeru yàlla nak kep ko xamante ne xew nga rek da nga caa mos bo ca musul won do xew min da fon yep yàlla mu ngi leen bindé ci leeram kon nag bu ngeen ñëwaatee fii te li yàlla bind yëpp ngeen nekk sang ya di nit di doomu aadama kon nag ñëw ngeen ci ngeen moom ñëw ngeen seen kër ñu leen di wax dal leen ak jàmm bisimilah rahmaani rahiim. gannaaw ci loolu gannaaw kilifa kon léegi ñu jublu ci waxtaan wi rek daanaka ndax sëriñ bi maanaam xëy na mën naa ni lii lu bees la ci ñun ñi xëy na it mën naa mu ne lu bees ci ñeneen ndax daanaka. moo waral xëy na laaj bi euh, bu fekkee Nurullahi man de xëy na ak ñeneen ñu ngi soogay dégg turu mbooloo gu mel noonu ndax bu fekkee murit la comme dañ naan waa kër Sëñ Tuubaa am na benn lien bu ñu kii wala waa kër Tijaan ñu ni waa kër Nanga waa kër Seydi Xaaji Maalik waa kër Saxam Tijaan ñu laaj sëriñ bi lii luy sabab bi. alhamdulilah rabbil alamin euh, ñu ngi sant yàlla tey jéem ci tontu ci li nga xamante ne moom nga laaj. dëgg la nuurulaahi mën na bees ci tur wi waaye nag fekk na ne képp koo xamante ne rek wàcc nga ci kaw suuf moom nga amee moo tax nga ñëw euh, beesul moo sos lépp moom lépp ndax képp koo xamante ne nii mbindaa nga yàlla mu ngi la feeñale ci tëjëliyaatam tajliyaat ci arab la waaye nag ci wolof mooy yàlla mu ngi lay feeñalee ci soppikoom maanaam jóge ci melo jëm ci melo mooy ne yàlla leer la mu soon doon waaye jamono boobu dafa am leer gu mu doonoon moom suñu borom mooy bi nga xamante ne moom yàlla rek nekk na kenn amut lenn xewut fenn amut lu dul moom dong ci biir boppam foofa leer la fi waaye leer googu nag tuddul nuuru laahi maanaam mënuñu ko wax gum leeru yàlla ndax leeru allahu te allahu xamagun ko ba muy tudd leeru allahu waaye ne leer la woon bu fekkee ne waxtaan bi may na leer googu dina jéem wax nu mu tuddoon waaye comme ñu ngi jublu ci nuuru dafa bees ak nopp da koy soog a dalloo kon foofu rek lañuy mën a taxaw euh, leeru yàlla la boo xam ne moo fi mësoon di nekk xanaa kon ñun dañoo yeesalaat tur yi waaye ñun sax fi leen ko fekk ñii ñu jiitu tamit fi ko fekk lu ñëw fi nga ko fekk fi ñëw moom nga àndaale kon ci benn gisin moo fi rek mosoon nekk waaye ci benn déggin day daal di bees waaye kër Serigne Touba googu ngay wax radiyallahu taala anhu ak ku mel ne kër Sidaaj Malick ak yeneen góor yàlla yëpp radiyallahu taala anhu moo ne lii rek lañu ñu amee woon ndax nuurullaahi mooy leeru laa ilaha illa mooy leer gi nga xam ne ci biir laa ilaha illallah lay juddoo ci lay ballee ci lay feeñee ci nga koy yëgee ci nga koy xame leer googu nag moo taxoon yonent sallallahu wax ne moo ne bi ngeen di ñëw moom ngeen indaale mu ne kullu mawludin yulidu alal fitra képp ku juddu loolu laahi nga judduwaale xam yàlla gis yàlla jàpp yàlla dégg yàlla di dund lislaam ima abawayhi yu hawidaani aw yu nasaraani aw yu majisaani benn nag way jur ya nga xam ne ñoo ko gatandu ñooñu ñoo ko détourné xañ ko ko wala ñu gën ko koo yeesaloo. wala ña ko yar benn ña ko jur wala ña ko jurul te yar ko wala société bi mu wàcc ñoom ñoo ko ko xañaat wala ñu dollil ko. kon nag leer googu moom la ñu amee moom la ñu andi moom la yàlla def ci ñun bu ñuy dellu moom la soxla ñu delluwaatal ko ko. moo tax nag mu ne loolu da ngeen dem ba jëmmi jamono leer googu ràpp ci yéen kon bu ñu demee ba tur bi di bees ci ñun rek dafa feer kon leer gee ràpp mu ne nag bu ràppee luy xewaat mu ne tajdidu imaanukum bi xawli laa ilaha illa allah mu ne su boobaa ba ngeen dem ba leer googu ngeen indi muy nuurullahi dem na bay rëcc ci yéen dem na bay raaf ci yéen dem na ba amaana yéen a ngi koy ñàkk mu ne na ngeen koy yeesalaat ba leer gi judduwaat ci yéen ñu ne ko ci lan lañu koy yeesalaate mu ne bi xawli laa ilaha illa ci wax laa ilaha illa bu ànd ak xam ak jëf ak dund ak ràññee leer gi beesaat ci yow kon loolu moo fi mësoon di nekk maam Serigne Touba radiyallahu taala foofu la jaaroon. Hmm. yeesalaat leer gi ci boppam yeesal ko ci jaami yàlla yi. Alaaji Malik Si foofu la jaaroon yeesalaat leer ci boppam yeesal ko ci jaam ñi bàyyi laay mii ci foofu la jaaroon yeesalaat laa ilaha illallah ci biir boppam mu yees ci moom leer gi judduwaat njaboot tamit mu juralaat ko ci ñoom kon mission yëpp du woon lenn lu dul yeesal nuuru laahi amaana nag ci biir yeesal nuuru laahi gi. ñii dañu ko tuddee muridullah ci bëgg yàlla waaye ci bëgg yàlla lu mu fay wuti leer ga kii ñu tuddee ko tijaani tijaani mooy kan mooy ki ñu ubbil ki ñu ubbil lan lañ koy ubbil nuurullaahi lañ koy ubbil laayeen maanaam dàqal tur dàqal sant la bàyyi laay wax koy woo ne ko allahu kuy wuyu mu ne allahu bu ñeeneen ku ngeen tànn nga ne laahi muxtaar yàlla lañ tànn boo tànnee yàlla lu la yàlla di jox nuurullaahi kon kay ñoom ñëpp junjoon nañu ko waaye Cheikh Malick daa ñëw jëmmal ko waaw léegi noonu lañ ko déggee ñooñu ñëpp dañ ko junjoon waaye Cheikh Malick leen dafa ñëw jëmbal bu fekkee sëriñ bi yéen a ko jëmmal waaw xam nga bu fekkee dañuy wax sëñ dafa ni yonent bi moo ko fekk ca euh, jumaay Daaru Xudoos ga ni ko yaral sa njaboot yi naa ak nangam xiise gi ñëpp dégg nañ ko ñun ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñu ni nee nañ yonent yàlla Muhammad moo ko jox ci jëhëratan léegi Cheikh Malick moom fan la biram yokk واو سقان التجاني من داره بأعظم الأواني فها ليس وصول بيني وبينه وصمدان خمغا مي يالا جوغفي ديمبل اك يالا جوغفي با تاي جي ني وخي ساسي رك امنا كو يالا دي جيفلانتي ديكو ديمبلي سي ليرام بو ndax su fekke dañ fay dund ta leer gi mënatul dibi dibali may jeex kon suñu nekk ci kaw suuf amatu njëriñ kon aduna dafa wara yàlla ci yonent yi la njëkkee woon di may bi mu see ba ci sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem lu leer la wax may gi jeexul may gi jeexul ku continuer di jaamu yàlla yàlla dina la fay donte man nekkuma fi waaye ku continuer du mooy yàlla yàlla dina la duma donte nekkuma fi man damaa ñëwoon dong ngir fàttali leeru yàlla ni mooy dëgg dàq leen askan bi dàq xërëm yi dàq lépp te ngeen kennal yàlla waaye loolu yellul ci man dong su ma demee keneen ku nekk yell na ci yow nga wéeru moo tax bi mu dëddoo saaba bu nekk jaaxle ku ne defe ne àddunaa ngi tukki lan la Seydina Aboubacar wax man kaana yaxbudu muhammadan fa inna muhammadan xad maata من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من كون جام محمد في مقام محمد يم يغل محمد مو مفاتنا واي كو خامنا يالا جي محمد دون انكارن موي لومير بوب مون غاي توف لومير بوب حي الخيوم مانام لومير بوب لوي دوندو لاتم دي كون لومير بوب مو دوندو تا ديول دوخ با سي شيخ تيار مو ديفات مانيفستاسيون دوندو تا ديول دي ولا نغان با سي مام سيرن توبا رضي الله تعالى مو ديف رينكارناسيون dund te deewul wala ngaan ba kër Sidaaji Malick def réincarnation waaye du te deewul wala ngaan ba ci ëttu Nuurulaay defaat réincarnation kon Nuurulaay du lu bees waaye lu ñu yeesal rek baatu laa ilaha illallah ba nga xam ne moo doon feeñal leeru yàlla baat boobu la ñu jotaat yeesalaat ko ci anam mu dëppoog jamono ngir ñëpp mën cee jariñu leeru yàlla garaan feeñ feeñaat mun naa am nag mu gën a tàng ci ñu njëkk ña mun naa am mu gën a sens ci ñu ña waaye ak lu mën a xew mooy leeru yàlla boobu moo fi nekkal loolu daal laa ci am lu ci leeral. waaw léegi sëriñ bi maanaam xëy na dama ni maanaam yéen naka ngeen def ba xëy na du tëb tëb rek sos sos mbir. am na ay yoon am na sabab. yoon googu sëriñ bi laa bëggoon nga leeral ñu ko rek. waaw yoon gi mooy yoon gi nga xam ne mooy yi tasawuf mës di tegtale. yasabu cheikhan aarifal masalik yaqihi fi tariqihi al mahalik ndax tasawuf góor yàlla yi dañu wax ne. ku bëgg leer gii képp ku ko bëgg a am. ñu ne yasabu àndal ak. cheykhan sëriñ aarifan bu xam masaalik yoon wi ngay jaar pour yegg ci hmm. yaqihi fi tariqil maalik su ko defee gàllankoor yi ak ndox yi mu sippil la ko ba nga egg ci nuurulaahi hmm. kon sëriñ lañ dem uti ni ñëpp ginnaaw bu ñu jàngee nañu war a jànge hmm. lay suñu cër ca xam-xam ba ñu tollool ñu am ko muy ci wàllu alquran wàllu ci daara ginnaaw bi nag lañ sóobu sabiru rijaal yi mooy yoonu góor yàlla waaye nag yàlla dafa def ci juddu ñu nekkoo nag way jur woo xam ne du ci gan way jur moo ñu njëkk a teg ci yoon kon maanaam bu mu ñu wax sama bunt damay wax ni sama bunt moom la ndax moom ma njëkk a teg ci yoonu góor yàlla yi waaye nag yemuma ci damaa wër gëstu nag yeneen yoon yi am ndax moom yoon la am ci yoonu góor yàlla yi waaye am na ñeneen yoo xam ne yeneen naan waay la ci laa def nag tajaw wër xoolaat yeneen naan waay yëpp lu fa xew du dajaluma yëpp nag waaye yu ci bëri ma seeti ko ndax ma wax la ne la yàlla fukki sóobuwaay ak ñaar la am yoon yëpp benn yoon du ci esek yëpp day egg ci yàlla te yëpp ci secret laa ilaha illallah la kii nag nii lay sóoboo géej gi kii di ko sóoboo nii kii di ko sóoboo nii waaye ñoom ñëpp ku ñu nuuroo kenn ku ne da jàpp waaye nag bu sóobuwaay yi wuutee it la ngay jàpp dañuy wuute kon nag ci laa wëraat wër sëriñ si di wëraat di toppaat leer gi di toppaat leer gi waaye booba am na lu may wër la nag كان ممكن يدخل نسيد أحمد تجاني شريف رضي الله تعالى نما نم ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم جنا أمم بموري كوري عليه دور دور بمن جري كم من جيش من مسيح محمد الكوريو نكو توغل نكسو توغي أم نكو خم دون ديك ليور مالا كي يدخل تقول كم أي سماو ينتي بي بمن توغي الله كم كي ينتي بي سوغي يدخل وايش يقيم رك ينتي بي يدخل أم نتك نين كجيو أي وي جرم مسوب توب كسيري فنوري سيري نيت بدأ ما من ينتي صلى الله عليه وسلم مجيو كوكو ينتي نك dañoo am wayjur ubbil ñu bunt ñu topp bunt ba waaye ba ñu ubbilee bunt bi am na lum ñu dayoon am na lum ñu garanti loon loo xam ne du yàlla ñoom di ko mën a siiwal waaye loola dem na ba am na ci lu tàbbi suñu loxo te li ci des insha allah amaana bu fan guddee loola dana tàbbi suñu loxo Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu nag moo ñu wérale li ñu am waaye la nga xamante ne dëgg-dëgg mooy secret bi nga xam ne moom la ñuy fëgge suñu lu Sidi Ahmad Tidiane Chérif moo nu ko jox na ko ko maamam joxe woon sa alayhi wa sallam la fayee bor bi ci man léegi sëriñ bi mu mel na que leer na naka ka maamam joxe noonu la fayee ko noonu nga noonu maanaam ndax ku ne da nga jotee mbir noonu nga koy fayee. kon li na mën nañ ko tuddee wute mën nañ ko bañ a tuddee wute léegi lu waral loolu. wute ci lan ak ak ñàkk wute ci lan. waaw maanaam bu nee wute ndax dañuy gis euh, bu fekkee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ko jox. Hmm. waaw maanaam ñu gis ni Cheikh Ahmed Tidiane bokk na ci yi gën a siiw maanaam.

moy distribuer zone yep ñuy am courant waaye ci biir secteur yi amna lu wax ay poste courant poste nak ñoy ñooy wat yenen secteur yi nga xam mom lañu la ñu centrale électrique bu mag bi am lu mu àttan waaye poste courant yi amna lu mu àttan poste courant bi n'ak, bu fekkee da ci cee bëgg doon poste courant garab bu la sutul du la may ker mm-hmm. loolu tax Cheikh Tidiane Chérif Allah taala ci ay mayam muy def ay décentralisation yo xam kii da koy chargé def ko poste courant kii mu chargé ko def ko groupe électrogène kii mu chargé ko def ko compteur kër kii mu def ko batterie oto kii mu def ko batterie rajo kii mu def ko batterie portable léegi nag ñooñu ngay wax di leen tudd ñoom ñëpp ay poste lañ egguñu nag ci centrale dynamo maanaam du ñu Cheikh Tidiane waaye ay ñu Cheikh Tidiane fal lañ waaye ñooñu boo ñëwee ci ñoom kenn yéeneem du ci téel ci boppam ñoom ñëpp liñ ngay def mooy chargé le courant te seen yéene mooy nga romb leen ba mel ni Cheikh Tidiane wala nga mel ni yonent bi ndax ñoom ñëpp lool lañuy jàng jàngale amul kenn ci kër yi nga tudd koo xam ne ca cosaan xaw ma nag ci léegi ca cosaan dana yor nit di jé buggul mu raw ko mais ndax dana la formation boo xam ne soo ko suivre dalay wax ne sax man sax war nga maa jéggi bët maanaam itte lañ doon yare taalibe yi hmm. itte lañ doon yare nit ñi kon ñoom seen yéen a doon woon mooy ku ñu pare ci yow nga nekk central hmm. te ñoom it seen bët mosuñu teg ci ku dul nekk bu mag hmm. maanaam mu di Cheikh Tidiane lañ doon bëgg kon ñu nit nag sëriñ yooyu ñu jaar dañoo teg ci ay yoon pour ñu jóge ci maqaama poste courant jóge ci maqaama maqaama alimentation sectorielle waaye pour nekk alimentation général loolu la ñu mës di ñaanal ñu ñu jaar ñëpp kër Cheikh Ibrahima Niass loolu la ñaanal taalibe yëpp Sidaaj Malick loolu la ñaanal taalibe yëpp ah ñaan googu mun na am moo nangu waaye suñu yéene ñun la yoon Sidaaj Malick waxoon duñu ëpp fula donte suñu turandoo la donte ci ñun duñu ëpp fula ndax moom moo waxoon ne yontu yàlla Muhammad mooy sama sang ñu ne waaw mu ne waaye lenn de xam naa ko mën na maa gën a gudd tànk wala mu gën ma kaa yaatule ñu ne waaw mu ne waaye fu mu teg tànka mu teggee seen ma fa nu ñuy déggee loolu mooy fulla ak jom mooy yéeneem wax na dëgg donte du moom mais yéeneem mooy mel na yonent bi kon ñu du diir mbagg waaye sunu yéene mooy mel na Cheikh Ahmad Tidiane léegi kon sëriñ bi daanaka bu nu déggee wax ji mooy maanaam mënu leen jokk ci Seydi Hadji Malick mm. mënu leen jokk ci Baye Niass mm. ndax tamit ñu bokk bëgg ñu bokk bëgg-bëgg yaakaar naa kenn war sa mën a jiit kenn du nangu kenn jiiteel loolu nga ko mën déggee waaw du ñàkk a jokk mm. ndax Cheikh Ibrahima Niass mu jokk ku ko xam-xam ne ñëpp ci lañ jokk ndax ci lan la jokk ci yàlla kon ñun bu ñu jokkoo ci yàlla jokk nañ ci Cheikh Ibrahima Niass buñ jokkoo ci yàlla jokk nañ ci Seydi Hadji Malick buñ jokkoo ci yàlla jokk nañ ci Jésus Christ buñ jokkoo ci yàlla jokk nañ ci yonent yàlla Moussa ku jokk ci yàlla nga ci képp ku ku jokk woon ci moo xam yonent ak ku man doon ndax benn fii la yéen a ci bokk jàpp li muy yëg ngay yëg mën naa gën a tànge ci moom nag mën naa gën a foore ci moom waaye yëg-yëg bi benn lay doon te mooy jubluwaay bi moo di yàlla ma ma maanaam xëy na li waral sax laaj bi hmm. ñun Sénégal dañu baaxoo ku fii da bokk benn kër diine hmm. xëy na loolu mooy seetlu gi gën a siiw. Mhm. te it moo fi gën a baaxoo. léegi yéen sëriñ yi maanaam bi ñu ñëwee dañu gis. Mhm. xëy na kë kë kër gi. Mhm. dafa woote këru diine. wala wootewul këru diine. waa il faut ñu xam luy këru diine d'abord. waaw léegi maanaam këru diine. waaw ni ñu koy gisee mooy Sëriñ Tuubaa dafa ñëw woote Muridullaahi. gaa yi di jokk ci moom. ma Seydi Hadj Malick ñëw hmm. ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif hmm. gars yi di jokk ci moom hmm. Cheikh Abdou Khadre Jilani ne am ci loo jokk ñu gis ni léegi yéen bu fekkee euh, <coughs> Tidiane gi senegal xam li ma jàpp mooy xaw na wuteeg bi murid bi ñu xam xaw na wuteeg bi léegi wuteeg googu ñun sëriñ bi la ñuy laaj lu ko waral waaw wuute amul maanaam ci gisin ci gisin nga jàpp ne lii dafa wute waaye ci fond bi benn la fond bi ci biir benn la ndax jubluwaay rek am solo léegi nag comme jamono yu bokkul nit ñi bokkuñu image yi dañuy wute mais ñoo bokk ci lenn lu ñu jopp ndax kër yooyu yëpp boo fa demee benn secret moo fa mosoon a nekk mooy secret laa ilaha illallah Serigne Touba wooteem gépp ci secret laa ilaha la ko woote Cheikh ma Tidiane Chérif ci secret laa ilaha illallah la woote Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ci secret laa ilaha illaa la woote ñun bi ñu ñëwee ci secret laa ilaha illaa la ñu woote kon benn la léegi nag lan mooy këru diine diine mooy lan ak diina daynu diine mooy firi bor mooy këru bor mooy kër goo xam ne képp koo xam ne la nga amoon ca yàlla rëcc na la ba nga yoreel yàlla bor maanaam yoroo lislaam boo ko yóbbul soo demee ca kër ga ñu fayal la ko loolay këru diine mooy kër goo xam ne boo ko duggee ameel nga bor yàlla loo ko ameel mooy lislaam la la lebaloon dala koo lebal ngay juddu andawale ko lutax lutax bi ngay juddu andale ko ndax nit ki bu juddo beutam ben place lay xol image boko meunti wat duko top jamono bobu sunu borom kep la gis nopi loko meuna wayal nga waye nga noppé ci yam duko deg dégg lenn rek lay deglu moy yalla bakanam bi xàmmeewul xet gu xet gu neex parce que yalla rek la nokki gémmiñ ben bat lay hu rek lay wax tànk yi doxul ngir talul àdduna loxo yi nangul jàpp dara bañ ne ko da koo ngëb téye ko ngir ne lan am na lu mu jot a yor te mooy lislaamam googu yàlla lebal ko moom lay junj ne téye naa ko te bëgguma koo ñàkk moo tax même boo ko ubbee mu jàppaat léegi nag day mujj gi loxo yi jàpp lu ne dugg ci lu ne kon lislaamu loxo yi ñàkk na ko tànk yi dem fu ne dox lu ne kon lislaamu tànk yi ñàkk na ko gémmiñ gi wax lu ne wax ba wax lu ko dugal kon ñàkk na lislaamam bakkan bi noyyi lu ne bët yi xool lu ne nopp yi dégg lu ne xel mi xalaat lu ne pay mi dem fu ne léegi nag lislaam nga rëcc na ko hmm. léegi nag kooku lañ wax ne ko jugal dem seeti Serigne Touba ndax moom la ko rëccu ko moom bosom rëccu ko hmm. soo demee ci bosom boobu mu fayaaleel la bi nga yor hmm. kon këru diine la fay bor la ñu ne ko demal seeti ku mel ni Sidi Hadji Malick ñu ne lan mu ne la mu yoroon rëccu ko soo demee mu fayalaaleel la ko nga dem muy këru diine Cheikh Malick nag laa ilaha illallah boobu noonu secret boobu la yàlla tàbbal ci loxoom kon soo ñëwee jaayante ak man man lépp lu ma def lu dul bor boobu nga xamante ne rëccoon na la mooy sa loxo yi nga xam ne lu ne defoon nga ko ci ma delloowaat ko cosaan sa tànk yi ma delloo ko cosaan ba sa jëmm ji dellu ci cosaan boobu ñu ne jàmm bi dellu na ci yàlla dellu na ci yàlla judduwaat na judduwaat na fayaat na bori jotaat na lislaam kon këru diine mooy kër goo xam ne képp ku fa dem sekkere laa ilaha illallah tabbiwaat ci yow leeru yàlla tàkk ci yow lii mooy këru diine kon kay bu fekkee ne nuurulaahi day def loolu ci këru diine yooyu la bokk këru nag du jokk ci këru diine ndax lu tax këru diine ci yàlla lay jokk hmm. léegi nag ka nga xam ne moo jóg ñàkk ko koo koy jokk ci këru diine mais hmm. këru diine ci yàlla rek la war a jokk moo tax si daaji Maalik waxoon ne hmm. ah yéen suma njaboot ñu ne waaw mu ne dund day am faatu day am waaye maa ngi leen di xamal ne ma dund ma faatu kër gi santul si santul jóob santul lenn yàlla la sant kon këru diine la ci yàlla lay jokk kon ku yàlla ñor mu ne kër si daaji Maalik sa kër la waaye dama la yëgal ni képp ku yàlla ñorit nuurullaahi gi sa kër ko xës jokku ci yàlla nag amatoo feneen fooy jokk ndax alxuraan moo ne inna ila rabbika muntaha hmm. ku dem ba egg ci sa borom daytal baa ngoog hmm. ndax boo yeggee ba ci yàlla jéggi ko di demaat ci nit nit mbindeefu yàlla la hmm. boo demee ba ci yàlla jéggi ko dem ci jinne jinne mbindeefu yàlla la kon yàlla mooy raaya bi kon ku am yàlla sës nga sës nag rëkk rek ka ca baax boo rëkkee nag ci yàlla lay dal sës rek day léegi gannaaw ba ñu déggee wax ji macha allah ñu ngi koy ñu ngi rafet lu xam-xam ji leer na nañ ñi maanaam bu ñu déggee Cheikh Cheikh Cheikh Malick Cheikh daanaka buñ déggee wax ji këru diine la waaw léegi sëriñ bi mu amaat leneen tamit loo xamante ni xëy na bëgg nañ ko laajte waat muy dafa am këru diine sax day am yoon ndax day am charia am tasaw mm-hmm. léegi ñuy laaj ci sëriñ bi yéen fan ngeen faral di jaar ak fan ngeen di waaw xam nga ak lu mën xew mm-hmm. li ma la wax dañu am kilifa mm-hmm. te defe naa ne doom ju nekk te bi nu bàyyam mooy rëq ndigam dañu jaare ci bunt bi nga xamante ne moom la Sidi Ahmad Tijaani bàyyi hmm. ne bii kat bunt bu ma wóolu la bunt bu ma doy la ku ci jokk sa jokk wér du rëcc ba nga teere ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala hmm. ci lañ jokk te Cheikh Tidiane Chérif radiyallaahu anhu dafa jàngaloon ne mu ne hmm. sama ñaari tànk yi yëg leen ni benn bi teg naa ko ci charia bu Muhammad beneen bi teg naa ko ci alquran charia nag ak alquran moo fi nekk kon ñun leneen lu ñu def lu dul jël suñu tànk teg ko ci charia jël suñu tànk teg ko ci alquran war nañ suñu sëriñ wala kon woo ki ñu bunt bi ñu wax ne ci lañuy jaare wute na hmm. kon nag ñun xaqiqa la ñuy dund naam waaye bu ànd ak charia ak njàngalem hmm. loolu mooy li nga xam ne ci la ñuy dund hmm. léegi maanaam sëriñ bi dafa mel na xaqiqa ngeen di dund bu ànd ak njàngale bu alquran sëriñ bi luy xaqiqa waaw xaqiqa boo ko firee ci olof mooy dëgg dëgg mooy li xam ne dëgg la wala bu dee tubaab mu ne réalité kon maanaam dund gi dafa am loo xam ne mooy réalité wu dund gi am loo xamante ne apparence la rek maanaam lu ne fàng la mais njëriñ la bëriwul mu ngi mel ne jëmm jëmm ji tànk baax na loxo baax na yëpp baax na waaye ku ne xam ne ruu gi moo commandé kon suñ doon wax jëmm ji am na xaqiqa dañuy wax ne ruux gi mooy xaqiqaam ñu ne charia bi ñu ne jëmm ji cër yi mooy charia noonu la demee léegi nag dund nit ki moo fi nekk dund bi jëmm ji moo ko moom hmm. dund gi ruux gi dëkk jëmm ji moo ko moom hmm. léegi nag jëmm ji dund gi mu moom jëmm ji hmm. loolu mooy charia dund gi nga xam ne ruux gi moo ko moom loolu mooy xaqiqa mooy loolu mooy réalité bi moo tax sa jëmm ji boo ko bis bu nekkit amul fay ca yàlla dee watoog di peñewoog di sol yëre yëpp amul fay ca yàlla ndax loolu jëmm ji rekk moo ko moom waaye xaqiqa bi mooy lan mooy li nga jaamu yàlla dund ko maanaam bi nga su juddoo tegu ci yoon dem ba réer amaat yoon ut wasiila nga dem ba nga xamante ne xamal na la sa borom nga xam yàlla xam gu wér xam ko ci tur xam ko ci jëm xam ko ci ay meloom nga dunde loola nag lépp loo xam ne jaamu yàlla la moo xam ci nawaafil ak nawaafil nag dafa yaatu mooy ay naafi la moo xam saraxe ngay def loolu jëmm ji moomu ko gi moo ko moom moo xam dangay ngay zikar ruux gi moo ko moom moo xam dangay julli ruux gi moo ko moom moo xam da ngay koor ruux gi moo ko moom yooyu yëpp ruux gi moo ko moom kon loolu mooy xaqiqa waaye nag julli googu dafa am luy tax mu doon xaqiqa nag mooy ne julli dafa am mbóot hmm. bu ci nekk mbóot mi il faut que mu tàbbi ci julli gi soogu dund am njariñ julli gi tam su fekkee ne amul ruux comme ni jëmm ju ku dee noonu rek lay mel du dem fenn mënoo yow lu mu def yàq yàq ko defal kon nag julli gi pour mu wér yéeg yegg ca yàlla yéeg nga julli ko ñu yéege ko fayee ko il faut julli gi am ruux lan mooy ruuxu julli mooy que ne julli dafa am code boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa dako cee def code boobu nag ñu def ci julli téere benn téere charia jàngalewu amul amul benn téere charia bu jàngale code julli amul amul benn mazhab mazhab mooy ngir du maalik Malik radiallahu taala anhu du bu Shafi du bu Anbal du bu Ahmad du Abu Hanifa du kenn boo xam ne jàngale na kotu julli naka la ñuy julli rek la jàngale ak su yàqoon noo koy defaree ak luy wéral njàpp ak looy tari yooyu la ñu jàngale mais secret bi nekk ci biir julli boobu nag yunt bi sallallahu alayhi wa amee woon na ko ña nga xam ne attanoon nañ ko ci saaba yi def na ko ci ñoom ña ca des lu mu leen wax sallu kama raaytu ni usalli julli len ni ngeen ma gisee makoy julle waye abou bakkar daawul julle ni mu gis yonent bi daan ko daaw ko julle dedet fi yonent bi tegon julli diko tek fofu la abou bakkar tegon julli diko fa tek yonent bi sallallahu alaihi wasallam kabbar dañu wax ne sahaba yi ko daan dendal dañu di daan dendal mom dañu wax ne deun bi da daan yëngu di bat bati mel na cinu laax lo tek muy bax hmm. bakkar ci mujjantalu dundum non la doon julle hmm. usman nonu ali nonu ba ci sahaba yep. yep yep yep yep kon boba secret bi ci julli gi la def ci ñoom moo tax ñu mën a jullee noonu mm. ñi ci des nag bu ñu kàbbaree seen xel dem ci gëléem ga mm. bu ñu rukkooyee e natt ba bu ñu sëlmalee bu ñu yuuxoo ñu ne ah mbaaru bëre ba kon ñoom ci julli sax la ñuy fàttalikoo jafe-jafe yi ñu amoon bëri na koo xam ne dara da koo réer boo ko naafila woo léegi mu wax la fi mu ko denc ku denc dara fàtte ko nee ko demal naafila parce que julli concentration bu concentré woo rek la mu la zahir bi lay am la ko réeroon mu feeñ ci moom su fekkee nag secret julli la am mm. loola du ko def léegi nag secret julli boobu nag kenn du ko jàng ci téere amul téere bu koy jàngale amul loolu nag mooy li nga xam ne ci dënnu góor yàlla yi lay nekk hmm. dënnu ahlu tasawuf hmm. léegi nag boo demee ci cheikhul murabbi sëriñ bii yar soo ruux sëriñ boobu ginnaaw bi nga xam ne sëriñu daara bi jàngal na la julli ak su yàqoon noo koy defaree ba pare soo ñëwee nag moo lay wax nag julli goo xam ne dootul yàqu moom far bañ koy defar ak a ñàkk defar mooy salaatan daaimatan bi dawaami mulkila julli goo xam ne day sax dàkk ci fekk nguuru yàlla gi di ne julli googu di nekk julli googu nag secret la si secret boobu nag moom la ñuy wëri kër cheikhul murabbi ngir mu def ko ci yow secret boobu nag boo ko amee ci julli boo ne allahu akbar kàbbar da ngay janoog malaaka yi kàbbar yépp nga kàbbar ànd ak ñoom boo ne daal rukkoo ne allahu akbar janoog malaaka yi yëpp ànd ak ñoom rukkoo boo ne daal sujjóot gis malaaka yi sujjóot nga sujjóotandoo ànd ak ñoom soo toogee di taaya yaa ngi malaaka yi taaya dem yéenay ànd boo ne asalaamaaleykum malaaka yi yëpp jóg ñaanal la ngeenelu yàlla ñaanal la gudd fan kenn ku nekk nak daw di la fon di ñaan barke ci yow ku baax julli gogu lañu sopp julli gogu moy gi nga xamne moy julli gi ànd ak secretem julli gogu motax mu alquran wax ne inna salata nako gogu la julli tamha anil faqsha wal munkar boko de def ñaaw tef ak mbon manato ko waaye allahu akbar allahu akbar sama kep kepal bi boy pare di delu ci ñaaw tef boy pare di delu ci mbon ndax lam waron raxas ci yow defu ko duru koy moy yi mooy raxas sekkereem rukkoo yi raxas du sujjuut yi mooy raxas secret sujjuut yi mooy raxas du taaye yi mooy raxas mais secret bi nekk ci taaye mooy raxas du faatiya mooy raxas secret bi nekk ci biir faatiya bi mooy raxas loolu nag mënoo ko am ci téere bi waaye ci téere bi nga xam ne du tooy alxuraan bi nga xamante ne ngelaw du ko yóbbu alxuraan bi nga xam ne su ko yàlla doon wàcce doj attunu ko géej attunu ko dara attunu ko ci alxuraan boobu lay nekk moo tax juróomi alxuraan yàlla tudd wax na alxuraanul karim واحنا لسان العربي المبين واحنا القران الحكيم واحنا القران المجيد واحنا كتاب المكنون جرومي القران يي بو نيك يالا تودو نكو توري نك سونو ووتي ندخ لا ندخ جيم يا ووتي بو جيم يي ووتي رك توري ووتي كون بن بو نيك القران لا وايي سي نيفو بن بو نيك القران لا وايي سي دغري بن بو نيك القران لا وايي سي ميلو كون ليغي سيرن بي سوما ديغي واخ دي مانام نيت كو دا فا القران موم ci góor yàlla yi ku ne am na wala ci nit ñi ku ne am na alxuraan boo. waaw nit ki nit ki am na lu muy dund da ngay xam ni kii alxuraan sàngam ci la toll jàng ko moo muy dund lii. Mm. ndax ki nga xam ne jàng na baqara ba naa si tari ko ba pare wàññeeku ñu jàpp ko ci viol. Mm. jàng alquran baqara ba naa si dugg ci car rapide di tafu nit ñi. Mm. jàng baqara ba naa di door martu di sàcc alalu nit ñi. te kenn du weddi ne mokkulul alxuraan ndax boo ne ko taril mu tari dañu wax ne alquran lan la téré la bo xamné da lay jël ci lëndam yobul la ci lèr kon koku légui mom limi def lan la kon xana lèr la déedéet du lèr kon ban alquran moy dindi nit ki ci lëndam yóbbu ko ci lèr li téré bok mu jang moy lisanu arabiyyan mubin moy lakku arab bi la jang lettre biñ bind en arab rek la jang waye secret alquran bi nga xamné bu daan wacc ci yonent bi bu ko fekkee ci kaw gëlem day wacc bu ko fekkee ci suuf muy lox ñu ne saaba yi nan ngeen xamee woon ni alxuraan mi ngi wàcc ñu ne yonent bi boo ko gisee muy kat kat rek xamal buy pare rek di wax aaya mbaa mu wax mbaa mu wax saar ñu ne noonu lañ ko doon xamee léegi alxuraan boobu yow nga koy jàng loxo rafoo raf rafiwoo te yàlla mu ne alxuraan doji attanuñ ko mu ne boo jëloon géej gi lépp def ko daa jël garabi ci àdduna yëpp yett ko ay xalima ngeen yéem a bind bind benn araf ci alxuraan géej gi dana fer xalima yi jeex te mënu leen am benn araf ci alquran te ñun bis bi nekk ñu ne diw bind na ñaari kaamil ñetti kaamil kon alquran boobu muy lépp ku baax mooy alquran bi nga xam ne ci lañ lay réglé asa ci julli ci lañ lay réglé sa koor asaka yépp ba mu réglé kon ginnaaw bi nga jàngee làkku arab bi moo ngay dem di wuti leneen su du woon loolu Cheikh rafal radiyallahu ta'ala bi muy Serigne Touba mokkal na alquran ba bind ko ba fànni xam-xam yépp mu koy jàngale bi mu ñëwee fekk Serigne Touba ne ko dama doon wër tànku yàlla ba ci yow gisatuma ko benn mu dugg ci yow génn bu génnee wan ma fu mu jaar wala gisuma fu mu génnee rek mu doon yow mu tegal ko téere bi ni ko baasin mi mara mu ne ko lu ñaari feg di képp andiwul fekk fekk suñu sëriñ Cheikh Tidiane waxoon nañu lu ni mu ne lan al ilmu laysa fi sutur walakin fi suduri rijalillah mu ne xam bi tax ñuy wax ay fegg du ko képp ñu ne ko fu mu ne mu ne ci dënn góor yàlla dellu mu ne suduru rijal yi xuburul asraar yi mu ne booy wër bàmmeelu xam-xamu yàlla yi demal fëgg dënn góor yàlla yi te bàyyi kayit yi kon alquran bi ci ay kayit lay nekk waaye secret alquran du nekk ci kayit moo tax maam Serigne Touba ba tey bañ koy yóbbu géej fi la bàyyi kaamil yi mu ne gars yi doon na jàng kaamil pour ma dellu si mu ne ay waay bu ñu xamul yóbbaale naa secret alxuraan ci géej ay kayit dong laa fi bàyyi hmm. kon alxuraan boobu mooy alxuraanu leer bi nga xam ne képp ku ko am gindeeku siraatal mustaqim ci ngay tege mbon ak réer ak caay-caay dootoo ci nekk waaye bu dee bii rek ay nit mokkal nañ ko ba tey nga xam leen jóge daara te na ma yàlla baal ci wax ji kenn gënu leen a saay-saay hmm. dañ daan wax seen ndonga daara caay-caay ci la yam te pourtant ci alxuraan fanaan ci lay yendu ci lay lépp waaye am na alquran boo xam ne képp kum tàbbi sa dënn mooy leer gi nga xam ne moo lay jëriñ dunyaa wa uxra leer googu noonu mooy alquran yii ma la bu ne leer waaye nag ci ay leer yu wuute nag yi ma la tuddal hmm. bu nekk ak leeram hmm. te am na yeneen yu ma la tuddalul nag dama laa tuddal juróom yi hmm. waaye juróom yi benn bu ne juraat na juróom ñaari alquran waaye yëpp ay darajaat la wa rafanaa ba'dahum fawqa ba'din darajaat yi alquran yi dañ leen def ay escalier léegi da ngay jóge étape bi yëkki bi génn bi yéeg ci bi moo tax ñu ne góor yàlla bi day yéeg ay maqaama wala ay martaba ci waxin loola bokk na ci lu muy misaal waaw daanaka comme que dégg nañ léegi sëriñ bi mu amaat xam ne xëy na ba léegi ni ñu baaxoo rek kër gu ne dafa am nan fay mm-hmm. ndax pour jokk ci kër Cheikh Ahmadou Bamba jébbaloo la koy may mm-hmm. pour bokk ci kër Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu da ngay dem jox la salaatu fatiha léegi mm-hmm. gi moom jokk fi lu muy dem jokk fi niñ daan jokkoo ci kër góor yàlla yëpp ndax ku nekk ni nga lebe ngay fayee ñun danoo jokk woon ci wirdu bi ñu jokkoo ci wirdu ju wirdu wirdu wirdu wirdu ba li ñuy wut ñu xaw ci am luñ ci am konit keneen koy jox mënoo ko jox lu dul lin la joxoon kon fii ku fi ñëw jokk ci wirdu ngay jox wirdu wu fi nekk nag mooy wirdu Seyd Ahmad Tijaani Chérif radiallahu taala anhu wirdu woowu ci ngay jokk ngir lan dox nag wutali xam sa boroom ndax looloo yëkkati wirdu lu wirdu woo gis yeggale jaam bi ci boroomam moo ko yëkkati kon wirdu wu fi nekk wirdu Siraama Tijaani Chérifullah taala na waaye ban objectif eggali jaam bi ci boroom kon ku fi ñëw ci wirdu ngay jokku wirdu woowu moom ngay def li ngay bëgg ci wirdu woowu nga ko mën سواء انتما لجيلاني او انتما لاحمد التجاني او سواهما من الاخطاب اذ كل خطا على الصواب سيرن بامبو مكو شيخ سيداج مالك فعل كونيكو الطرق كلهم للرحمن مسلكه موسله يا جاني مونيكو واو دغ لا نخ بامبا مونا مونيكو تاريخ ييب نك للرحمن تي يالا رك لا نجم mu ne ko benn day seetal jaam bi musal ko sóob ko yeggale ko sa yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatulah. léegi gannaaw ba dégg déggee nañ ko noonu. ñu mel ne gannaaw ba ne ko gisee. leer na nañ. waaw léegi sëriñ bi nag mu am xëy na luñ ciy dolli rek. muy lan mooy seen ambition. lan mooy seen ambition yéen ñuy woote ñoom. waaw ambition bi lenn rek la. Hmm. mooy jaam ñëpp xam yàlla. Hmm. buumu jaam bi nga xam ne àdduna tënk ko jaam ñi dog. Hmm. ñu nekk jaamu kenn ku dul yàlla. waaw kon gannaaw ba déggee nañ ko noonu mu mel ne sëriñ bi loolu dana xaw a jafe waaw lu jafe la. Hmm. ndax yoon wi nga xamante ne ci la yàlla doon jaarale yonent yi. Hmm. musta yomb. Hmm. te mooy yoonu jël nit ñi jël leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer. ñun yoon woowu lañ donnuwaat kon bàyyi nañu xel ne yoon wi du yomb ndax alquran moo ñu moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inna sa nulqi mu ne ko alayka qawlan shaqilan yonent bu ne waaw mu ne ko danaa enkewal ci yow wax joo xam ne ak a diis mooy lan laa ilaha illallah kon waxuma li ci topp mais laa ilaha illallah rek dafa diis kon ku ne xam na ne ay nattoo ci nekk ku ne xam na ne ay gàllankoor a ci nekk waaye nag yàlla moo ko wax ne ko wallahu yaxsimuka min annaas waaye nag bul tiit nit ak jinne yàlla aar na la ci dellu wax ko ne ko wal aaxiratu xayrun laka min al uula début bi rek mooy am ay difficulté waaye mujjantal gi ñëpp Muhammad la ñuy wax kon it yoon wi none la ci yonent yàlla Muhammad kon it njàlbeen mën na metti njàlbeen mën na ñagas waaye mujjantal bi tamit leer dong la kon nag mooy mujj leer gi mooy mujj ker kenn mënu ko suul ak lu mën a xewit leeru yàlla mooy féete kaw te loolu ci la ñu nekk gannaaw ba déggee nañ ko noonu mu mel na ko ñoom ci mujjantal gi rek daanaka lépp lu fi matoon ler maşallah ler na te tubaab fakal la tegu na ci xam-xam tegu na ci li xel mën nam kon sëñ bi dañ lay laaj looy soññee mbokki taalibe yi nga xam te ni ñëpp yéen ñii lañu jokk te yéen a leen doy te yéen lañu jox seen bopp waaw euh, ñun ñoo leen doy ngir jëmmi yàlla hmm. si ñun lañ jokk ngir ñu yeggale leen ci yàlla hmm. ñuy wax ne message bi ñuy lancé du tënku ci njaboot dafay tënku ci univers bi yëpp. Hmm. mooy que li may wax mooy bépp jaam boo xam ne. Hmm. yëg nga ni bakkan a nekk ci yow ngay noyyi di dugal di génne moo xam nit moo xam jinne hmm. yëgal ni bala yàlla di defal loolu pour nga xam ko jaamu ko la kon lépp loo mën a def lu dul xam yàlla jaamu ko war nga sa bopp war nga sa borom. lépp loo mën a def. lu dul fexee xam yàlla jaamu ko. war nga sa bopp war nga sa borom. xel ne dund gi lu gàtt la. dund gi war rekk la. lépp loo jàpp defe ne dund gi dala koo may dala koo abal bés dina ñëw dund gi nangu ko bu dee taar hmm. danga koy ñàkk bu dee alal danga koy ñàkk bu dee juddu gu rëy da nga koo ñàkk lépp day mujj raaf jëmm yàlla ji rek ay des hmm. kon nag waajal sa bopp li ñu wax ni muttu la anta muttu dee leen laataa dee ñëw hmm. waajal sa bopp wan ginnaaw àdduna wan ginnaaw lépp jàpp yàlla ngi bala ñu laa naan waajal leen ko guddi na bala wala ñu naan waajal leen ko naaj kon loolu laay suma bopp di ko conseillé mboolem koo xamante ne jaamu yàlla ñu xam ne dund gi lu gàtt la jaaruwaay la ñu war fee liggéey lu ñu yóbbu ci suñu borom kon nag lu ñu profitoo ndax xamuñu dee gi ndax léegi la est-ce que émission bi dina yegg est-ce que après émission est-ce que kon loolu yëpp ay question la yoo xam ne lu mat a bàyyi xel la ñu war ko bàyyi xel suñu biir bopp kon nag dund gi comme dafa gàtt njëkkante la ñu war a def waaye njëkkante ci la ci xam yàlla jaamu njëkkante ci mbaax njëkkante ci njub bennoo bennoo gi nag munul am lu dul dañoo bokk ci buumu yàlla bu dëgër gi te mooy laa ilaha illallah ndax mbootum laa ilaha illa képp ku mu tàbbi ci yow mënatoo noonu kenn waxuma la sax jullit mënatoo noonu kenn xaj bi sax doo ko noonu dafa am lu ñuy wax om universel secret laa ilaha illa mooy secret univers bi ku mu tàbbi ci yow nga nekk l'homme universel